ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi war a jël tey aaya quarante cinq ci suratul ahzab يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أمك نيجي يسال سنتر سني بروم سبحانه وتعالى من ورسغل ñu dajawaat ci am néegam fas yéene jël benn bind ci ab téeréem mu nekk jaamu yàlla gu kawe gu suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam daan ñu bégal ci xéewal ya nga xam ne moo ca nekk donte ne ni moo ñu bégaloo nit ci ni bokk na ña ñuy keral ca laaxira mooy ña nga xam ne seeni xol dafa aju ca jàkka ja la shakka ne bari na lool ñu doon teew ak ñun jataay bi waaye mbas mi suñu borom wàcc ci kaw suuf ba mu sab ba mu sabab ay couvre-feu tax na ba mënatuñoo ñëw ñu ngi ñaan suñu borom jalla wa ala yal na jéggal ci yërëm waa suuf ci teggal ñu mbas boobee ba jullit bu nekk loo bëgg a dem teewe ko nga teewe ko ci jàmm gannaaw mbas moomu it ñun am nañ leneen lu dolleeku ci ñun muy fitna bi nga xam ne ñi ngi ko doon xalaat fan yi yépp mu tabbi tey ci suñu réew suñu ndaw ñi jàkkaarloog ñi nga xam ne ñooy borom tenu yi ñuy xeex ndax xeex ba fa la yem déedéet yemu fa dem nañ ba boole ci ñu ci son yoon nekkul dajji magasin yi son yoon nekkul toj oto yi son yoon nekkul jël alal yi ñu son yéen nekkul la nga xam ne dañ koy dégg ci rajo yi ak xale yi nga xam ne xam nañ leen ñu jóge université ay gaañu gaañu yoo xam ne nii def nañ ko ay xale yoo xam ne nii jéggi na dayoo mbokk loolu yeeyul ci dëkkub julit julit da ngay xam ni sa mer bu dee da nga ko bëgg a feeñalit dafa am lu ca dagan ak lu ca daganul suñu borom mu ne wala yajrimannakum shana'aanu qawmin mi ngi noonu allah allah taadilu mi ngi noonu du ci mën a xew mooy mere ay nit état lam lu mu mën a doon bu mu tax mukk mer boobu nga yóbbu ko ci ku ci bokkul loola tax ku ci mën a wax ak sa njaboot walla waay na wax ak moom événement yi buñ ci dugg bul dem ñu lay gaañ bul dem di gaañ keneen bul dem di yàqal keneen loole ñu ngi koy yëkkati di ko jëmale ci ndaw ñi di xamal itamit ñi nga xam ne ñoo mën a wax ak borom homme de tenue yooyu ñu xam ne ndaw ñi ay victime lañu partout dans le monde événement yi mel ni bu amee acteurs yi ko jiite duñ ci dee seen njaboot du ci dee donc ndaw ñi rek ñeneen la ñuy jël ndaw yi baadoolo yi gurgur leen ñu indil leen yéen homme de tenue yi tamit ñooñu da ngeen war a bàyyi xel loolu moytu ba ñu leen a def loo xamee ne nii mën na leen yàqal àdduna yàqal leen àllaaxira ala kulli xaal mbokk borom xam-xam yi def nañ ci ay xutba yal na yàlla wàcce jàmm suñu réew ci fitne bii mu wëlbati ko def ko bardan wa salaamun alayna kon incha allah mi ngi noonu Cheikh Ousmane.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا بارك الله فيكم suñu borom kon day wax ni ya ayuha nabiyu ey yow yonent bi inna arsalnaka shahida ñoo la yónni ngay aji seede wa mubashiran wa nazira ngay bégalaate ak di xuppaate de moytuwaate moytuwaali nit ñi wa daa'iyan ila allahi bi izni ngay woote jëme ci yàlla ci ndigalam wa siraajan munira nga nekk lamp boo xam ne nii lamp la bu leer naññi la wa bash wa bashir almuminin bégalal ñi gëm bi anna lahum min allahi fadlan kabira la ñeel na leen ci yàlla ngëneel boo xam ne bu màgg la wala tuti alkafirina walmunafiqin bul topp yéeféer yi bul topp nafiq yi wada azahum bàyyil seeni lor ay bu ko faale wa tawakkal ala allah wikkul ci sa boroom wa kafa billahi wakila doy na ci yàlla ku ñuy wakkirloo ay di ca sukkandikoo ya ayuha alladina amanu ey yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm ida nakaxtumul muminat heure boo xamee ne ni takk ngeen ay julliti jigéen yu jigéen mi ngi noonu ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن gannaaw ba ngeen fasaleen jiitu ngeen leen di laal ay ànd ak ñoom ci kaw lal fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha amuleen ci ñoom ci benn idda boo xam ne nii dañuy nekk di ko iddawoo ay di jàpp délai avant ñuy see keneen fa matti'uhunna na ngeen leen xiiwalal jox leen ab yóbbal wa sarrixuhunna saraxan jamila ca ngeen yewwi leen yewwi goo xamee ne nii gu rafet lay doon mi ngi noonu mbokk gis nañu suñuy borom subhanahu wa taala ci saar bu màgg wi woo na ci suñu yonent juróomi yoon ci yaa ayuha nabi loolu it day fàtte suñu borom mi ngi ciy fàttali ne ay ndigalam kenn génnu ci ka ca jiitu mooy yonent yàlla bi waaye yonent yàlla boobu it day jottali rek la nga xam ne mooy ndigal yi bawoo ci boroomam suñu borom mu ne maa la yónni yónni la ngay doon aji seede na am yonent boobu mooy seede ne nii la yàlla bëgg ñu jaamoo ko yowmal qiyaama it yàlla dana ko woo mu ñëw seede xeet bi ndax jottali woon na la yàlla bëggoon ñu jaamoo ko ko suñu boroom ba mu koy nettali ci suuratu nisa ibnu masud mas na ko jàngal suñu yonent keroog yonent bi dafa jooy ndax la mu ko wóor rek mooy bu ñëwee di seede xeet bi day fekk la ëpp ci xeet bi jaaruñu woon ca la ko yàlla yónnee woon maa la yónni ngay aji seede maa la yónni it ngay béggalaate ak di xuppaate lan lay béggalaatee mbokk may aljanna aljanna mooy kër gi mooy kër gi xaar képp koo xam ne wuy ji na yonent boobe waaye topp yonent boobe yonent bi nee na woon yéen ñëpp àjjana ngeen jëm yéen ñëpp àjjana ngeen jëm xanaa lu dul ko bañ ah yow mi yàlla yónni ku ñuy wax kaay dugg àjjana nga bañ mu ne day man ataani daxalal janna wa man asani faqad aba koo xam ne bi ma wootee topp si na sama woote kooku àjjana la jëm koo xam ne nag daa lànk jaar weneen yoon kooku mooy ci bañ loolu bégalal nit ñi mbokk julit dundug àdduna wallahi président de la république général kum mën a doon yaa ngi dund ay bisu xat-xat ay bi bisu tiis président gisuma ko waaye xam naa ne bisu tey bi neexul ci moom loolu mi ngi noonu donc àdduna kërug nattu la kërug tiis la léegi nag nga jóge fa nag ñee ña nga gaana ñee ña nga ca prison ya ñee ña nga tumuranke bitim réew ñee ña nga ñàkk ñee ña nga ñee nga waaye yow béggalal ñooñu ñépp ni nañu muñ àdduna lee mu jeex suñ jaaree fi ma bëgg ma dajal leen ci àjjana muy nguur goo xam ne du jeex ba faw yal na yàlla yóbbuñu fa waaye nag xuppal ma ñooñu jaarul saw yoon da doon ñooñu ay buur la jokke baadoo la da doon ñooñu lu ñu mën a nekk xam leen ni la leen di xaar mooy sawara ca mbokk dara melul na sawara ci musiba dara melul na sawara ci musiba loolu borom bi subhanahu wa taala bi mu ko waxee ne ko yónni naa la mubashiran wa nazira gannaaw ba nag mu ne ko yónni naa la ngay woote jëme ci yàlla ca loolu it nekk war a góoru bépp julit da doon da ngaa bokk ci imaam ya da ngaa bokk ci ñuy jàngale da ngaa bokk ci ñuy wax ak njaboot ga ak lu mën a doon ngalla waay ku nekk ci ñun war a nekk daaiyan ila allah woote kër jëma ci yàlla suñu borom nee na ko qul haadihi sabili ad'u ila allah ana wa man ittabaa maag ñi ma gëm ñëpp dañuy woote jëme ci yàlla te loolu mbokk mooy al ixlaas mooy tudde woote jëme ci sa bopp loolee mbokk ci li gën a garaaw ca la bokk mooy di woo nit ñi di leen jàngal diine ngir bëgg ngaa siiw bëgg ngaa kawe wala di woo nit ñi di la woo di leen woo ci seeni maam wala di leen woo ci seeni baay mbokk yooyu yépp ay musiba la kii woote day woote daaiyan ila allah jublu ci gindi nit ñi ngir ñu xam seen boroom jaamu seen boroom mi ngi noonu waaye léppit nga defe ko bi isni ci déglu yàlla mbokk woote jëme ci yàlla firiwul ni lu la neex man nga koo créer ci ay biddaa ngir convaincre ci nit ñi déedéet yàlla la ñuy woo jëme ca mooy lam santaane ñu woo ci jëme ca loole ñu bàyyi ci xel bu baax bi isnihi def naa la it ngay siraajan munira ca mooy leeral naa say mbir ñeel képp koo xam ne nii ah desenam xel dana xam ne yow li ngay wax dëgg la li ngay woote jëme ci dëgg na am mbokk julit yàlla def na ko xatta yéeféer yi nangu ni ku mel ni muhammad alayhi salaam musul teg tànkam ci kaw suuf mi ngi noonu loole yëfa di bëri seedal nañ ko ko diina ju leer diina ju sell diina ju yomb amul benn xaraj amul kenn koo xam ne nii dana ca ñàkk topp lu dul ko alku moom la yonente bi alayhi salaam waxoon ni taraktukum ala mahajjatin bayda layluha ka nahariha la yaziq anha illa halik teg naa leen ci yoon wala bàyyi naa leen ci yoon bu leer nañ ñi jaar fa guddeeg jaar fa bëccëg a yem ki nar a alko dong moo koy teggi di jar feneen loolee mbokk dañuy jàngal dañoo war a góorgóorlu xam sunna te doyloo sunna xam sunna te doyloo sunna borom boobu nag subhanahu wa taala yee salaat gannaaw bi mu ko waxee ne yónni naa la mubashiran mu yee salaat ci na ko nag bégalal julit ñi ne fay yo màgg mi ngi leen di xaar naam yonente bi alayhi salaatu wasalaam bégal ne julit ñi ci façon yu bëri bégal na leen ci ne àjjana ji yàlla digte day nee na bët mësu koo gis xel mësul xalaat ba mën a xalaat ba mel ne àjjana nopp mësu koo dégg bégal na leen ci ne mboolem xéewal yi yàlla wàcce ci àdduna day suñ ko doon méngale ak aljanna mooy yow mi demoon géej jël sa baaraam samp ci ndox mi li taq sa baaraam mooy méngoo xéewalu àdduna la des ci géej ga mooy méngoo xéewalu aljanna loolee mbokk lu màgg la loolu it moo tax sahabatul kiram yëkk a gëmoon def ay kawtéef yoo xam ne suñ la koy nettali da nga jàpp ay liib la sacrifier seen bopp takku ànd ak moom jihad fi sabilillah woote ci yoonu yàlla lu tax mooy aljanna moo nekkoon seen kanam la nekkoon bàkku jine su démb mooy allah wal janna seen dund gi ñaar lañ ci wut ngërëmal yàlla ak dee tabbi aljanna tey biñ demee ba jamono soppeeku ba nit ñi soppi diine ci alal su ndaw ñi looy gis ñuy wax ko barzaq wala barcelone moo di ne ni toog ci réew mi daal duma tekki lu ëpp ci ñoom dañ naan danaa risque jaar ci océan bi imma ma jéggi dem am alal wala ma dee jeex na mbokk loolu da ngay gis ne ñu bari ci ndaw ñi nga xam ne yaruñu leen yarub diine loolu moo nekk seen xol waaye nga la waay yow doomu julit bul dugg ci lu mel noonu sa dund gépp jagleel ko sakku ci aljanna firiwul ne da ngaa war a bàyyum njàng déedéet jàngal ba nekk architecte jàngal ba nekk prof université dajale alal noo ko mën a dajale lu dagan waaye na doon li nga xam ne mooy algaaya objectif ba gën a rëy bay am ci sa dund mooy naka naa def ba jaamu yàlla ba tabbi aljanna yàlla yàlla tabbal ñu aljanna borom bi bàyyi loolu delluwaat nag ci jullit ñi mboole seen mu ne ay yéen jullit ñi su dee da ngeen a takk soxna bi ngeen ko takkee ba pare avant ngeen di siq ab lal ci sëy ngeen fasaleen su boobaa idd amu fa tey jii bu ñu toogoon cib géew kii kat mooy moodoog faatu maye woon nañ leen sëy bi duré na dix ans waaye mosuñoo bokk cib lal bokk na ci ay borom xam-xam lenn lu mel ne mazhab malik bokk na ci loolu mooy ñu boole leen cib néeg suñ leen boolee cib néeg loolu dañ koy tudd du xul même bu dee waa ji mënul yegg ci moom ala kulli xaal yow daal soxna si mosu leen a bokk ab lal nga fase ko jataay biñ ko fase bala ñu fay jóge mën nañ koo may keneen ndax idda amu fa idda amu fa am na nag ñu koy jaawaleeg waa ji dee woon waa ji bu doon dañ koo may soxna mosul gisanteeg soxna bi yàlla dogal mu dee soxna soosee bu doon dig nañ ko can dañ koy jox canam day doon ca day tiiñ ji doonte ne mosul gisanteeg waa ji amma bu dee ne fase la moom idda amu fa borom bi subhanahu wa taala mu ne fa matti uhunna matti uhunna boobu dana nekk ci ñaari mbir ndaw si fase nga ko diggoon nga ne ko danaa la may deux cent mille masalan fase nga ko avant ngay bokk ak moom lal cent mille yi moom suñu borom mu ne farata la ci nga jox ko ko xanaa lu dul mu baal la ko wala sax yow ci sa mbaax nga mottali deux cent mille yi far jox ko ko benn yoon mi ngi noonu waaye cent mille yi moom farata la su doon tane joxoon nga ko can ba can nga jeexit borom bi mu ne fa matti uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila mbokk soxna foo ko fase dañoo bëgg nga jël loo xam ne dana yéwénal diggante bi jox ko ba mu kontaan ca ay mbokkam kontaan ca ñu xam ne kat problème am na bañ gis ne sëy bi ñu tas ko moo gën mu wëy waaye nag noonoo amu fi ca yàlla mi tas dogal sëy bi tas tey mën nañoo dem ba ëllëg ñu àndaat looloo tax suñu boroom rafetal takk gi waaye nit dañuy rafetal fase gi ndax lay xew ëllëg ëllëgi yàlla la la allahu an an la allah an yuhdisa baada zalika amra loolee kon mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax mi ngi noonu cheikh ousmane
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك اللاتي وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما barakallahu fikum kon suñu borom jalla wa ala mu ne ya ayuhan nabi ay yow yonent bi yàlla bi inna ahlalna laka azwaajak ñun day daganal na ñel la say soxna allaati aatayta ujurahunna ñooñu nga xam ne jox nga leen seeni can wa ma malakat yaminuk ak lépp loo xam ne moom na ko sa ndeyjoor mimma afa allahu alayk te la nga xam ne delloo si na ko yàlla ci yow muy jaam ya wa banaati ammik ak sa doomi jigéen yi sa baay taxiya mu ngi noonu magu baay wala rakku baay wa banaati ammaatik ak doomi jigéen yi sa bajjen ya wa banaati xaalik ak doomi jigéen yi sa nijaay ya wa banaati xaalaatik ak doomi jigéen yi sa tante ya alaati haajarna maak ñoom ñi nga xam ne ñoo gàddaa yoon ànd ak yow wa mraatam mu'mina ak bépp jigéen bu gëm yàlla in wahabat nafsaha linnabi su dee may na bakkanam ba ñeel yonente bi in arada nabiyu an yastankihaha su dee yonente ba bëgg na di ko takk comme soxna xaalisatan laka min dunul muminin lii nag jagleel la ñeel la julit ñi bokk ñu ci qad alimna ma faradna alayhim julit ñooñee xam nañ lan lañ faratal ci ñoom fi azwajihim ca seen soxna ya bokk na it wa ma malakat aymanuhum la nga xam ne moom na ko seen ndeyjoor ya muy seen jaam ya lii defal nañ la ko li kay laa yakuna alayka xaraj ngiree mu bañ a nekk ci yow benn xat-xat wa kaana allahu gafuran rahima yàlla day nekk na musul deñ di aji jéggalee di aji yërëmaate mi ngi noonu mbokk da ngay gis ne suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam suñu borom yàlla moo ko yónni jagleel ko lenn ci ay jagle yoo xam ni moom dong la ko jagleel bokk na ci loolu mu ne ko yow yonent bi daganal naa la soxna yi nga xam ni dagaleen a jox seeni can ak ña nga xam ne ay jaam lañu ci loo xam ne yàllaa ko delloo si ci yow loolu lañ koy jëkkee déggee mbokk jigéen heure boo ko tekkee danga koy jox can islam du nangu ñu jël benn waay rek jox ko jigéen noonu mu dem ci amul can can ga nag mën naa nekk lu bari mën na nekk alal ju muy joxe mën na nekk effort bu muy def yéen ñëpp xam ngeen ne yonent yàlla Muusa sàmm na fukki at mu nekk canu soxnaam sa juróom-ñett yee moo doon farata ñaar yee mu def ko ci ndollant mën naa doon xam-xam booy jàngale yonente bi alei salatu wasalaam may na benn sahaaba soxna ngiree mu jàngal ko la mokkal ci alquran kon loolu mooy can waaye can moom munte ñàkk mën naa jiitu sëy bi mën naa ñëw après sëy bi nit ki mën nañoo ñëw may ko soxna sëy bi dagan waaye nag balaa ànd ak moom fokk mu joxe can loolu ñu bàyyi ci xel bu baax kon loolu moom ñëpp ci bokk yem gannaaw bi it suñu borom wax ñeenti jege ñaale yi dagan a takk ñeenti jege ñaale yi dagan a takk lu jiitu boo dellu woon ci yahud ya ñoom bokk na loo xam ne dañ koo def ci seen diine yahud lan moo aram ci moom ki nga bokkal ndey wala nga bokk ak moom bàyyi waaye keneen koo bokkul ak ndey ak bàyyi bu la neexee nga takk ay jarbaat la ñoo ay bàjjan la ñoo ay tantaak seen yoon néew ci maadaama daal bokku leen ndey bokku leen bàyyi bu la neexee nga takk ko soo demoon ci nasaraan yi ñoom contraire bi lañ def nasaraan képp ko bokkal maam rek amatoo droit takk ko donc du sa doomu bàjjen du sa doomu nijaay du sa doomu nanga maadaama yéen bokk maam rek amatoo droit takk ko diine l'islam toujours moom day ñëw ci digg bi jaalnaakum ummatan wasata suñu borom ñëw contre yahud yi takk sa sœur déedéet loo takk sa sa doomu lu ñu koy waxee sa bàjjen wala sa maam déedéet waaye nag ñëw ci nasaraan yi contre leen ñoom it ne ah kay dagan na jegeñaal yi mu ñeenti ñi kii sa doomu rakk papa la wala mogo papa kooku sa jegeñaal la yéen bokk benn maam waaye sëy dagan na sa doomu bàjjen sëy dagan na sa doomu nijaay sëy dagan na sa doomu tànt sëy dagan na ñii mooy ña nga xamee ne nii sëy dafa dagan ci ñoom muy ñeenti ñi loolu ñu bàyyi ci xel bu baax amma koo xis ba ne maag moom a bokk ndey ay doomam xaraam nañu la ba ila yumiddin maag moom a bokk bàyyi ay doomam xaraamal nañ la ba ila yumiddin lu dul am ne benn lënt bu nekk ci nit ñi ci jarbaat ñu bëri ci nit ñi xamuñu ne jarbaat dafa xaraam ndax dañuy dégg jigéen ñi di wax seen jëkkër nijaay waaye mbokk déedéet nijaay boobu mën na nekk nijaayu forme waaye nijaay direct koo xam ne moog sa yaay wala moog sa baay dañoo bokk araam na sëy di dox seen diggante loolu ñu bàyyi ci xel bu baax kon loolu yonent bi ak jullit ñëpp ci bokk yam dagan na nga takk soxna jox ko can ñiit dagan na léegi nag borom bi subhanahu wa taala dolli ci leneen loo xam ne moom yonent bi rek ka yeeyoo mooy sëyi julit naka lay demee mooy sëyi julit bala ñoo mën a sëy fokk wëli day am benn jigéen du jóge rek maye boppam dem sëyi fokk wëli moo koy maye fokk ay seede am fokk can am ñu géew def al aqd sëy bi doog a baax ci sharia amma ba di yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla may na ko jigéen bu ñëw da ko yomi yàlla yónni may naa la sama bopp yonent bi nangul ko keroog mu nekk soxnaam ndax moom yàlla da ko jox statut spécial mooy wëli yu képp koy wëli mi ngi noonu autorité bi mu am ci soxna si moo ëpp autorité bi bàyyi boppam am ci moom donc ko naka bàyyi soxna sa naroon woo naan ko may naa la sama doom bi muy d'accord wala du d'accord moom ci boppam bu soxna si ñëwee na ko may naa la sama bopp su ko bëggee moo ëpp autorité kon bu ko neexee d'accord wala bañ a d'accord moo tax suñu borom nag ne ko lii yow laa la ko jagleel waaye beneen jigéen julit am beneen góor julit amul droit ci loolu amul droit ci jigéen ñëw may ko boppam allahuma nag li ñu yàlla nattoo sëriñ su bëri dañoo jàpp ne ñoom ñoo fi taxawal yonente bi alayhi salaam lu dagan ci yonente bi dagan na ci ñoom bal dem nañ ba dépassé borne yi mi ngi noonu wallahi sama mbokk bi laaj faa jóge ma leen di wax fii yal na ko yàlla yërëm nettali na ma kenn ci sëriñu Sénégal mun a toog na ak sëtam mun a ko sama maam takk na soixante quinze femmes ci ci Sénégal gi soixante quinze mbokk julit ñee ña nga ca trente ñee ña nga ca cinquante ñee ña nga ca nangam ñu ngi noonu benn jigéen buy ñëw fii ci tafsir bi def na ay reportage ci maître familial yooyu ñuy def dem ci benn kër laa ci sëriñ ba mu fa fekk waaw sëñ bi yow ñaata soxna nga yor mu ne ah xam naa war nañ jege cinquante de waaw cinquante ah sëñ bi ndax loolu mën naa ko bind mu ne ah bindal lu ci nekk bindal yaa ngi dégg waaw sax ala kulli xaal mbokk loolu dañuy guddal waaye daal li ma bëgg a wax rek mbokk suñu borom nee na bu dee jigéen ñi bu dee góoru julit ñi xam naa li ma daganal ci ñoom li ma daganal ci ñoom mooy liñ doon jàng ci timis ca suratu nisa in xiftum alla taadilu borom bi subhanahu wa taala mu ne fankihu ma taaba lakum min a nisa masna wa sulaasu ruba takk leen ñaar wala ngeen takk ñett wala ngeen takk ñeent jigéen bu julit du paase ñeent benn waay ñëw na ak juróomi jabar yonent bi ne ko jël ci kenn nga bàyyi ko dese ñeent yi am na ko ñëw ak fukki jabar yonent bi ne ko jël ci ñeent yi ñi ci des nga bàyyi leen gannaaw yonente bi abubakar omar ousmane mbooli mi sahaba mbooli mi taabiin kenn musu cee passé ñeente soxna ndax suñu borom mu ne loolu la farataal ci ñoom loolu ñu bàyyi ci xel bu baax képp ku yor ñeenti soxna ñëw nga koy may sa doom yaa ngi koy may muy njaaloo ji waaye gor ñeenti soxna lay am jeex na borom boobu nag subhanahu wa taala kon mu ne loolu xaalisatan lak min dunil muminin xam naa li ma farataal ci ñoom lu dul ne lii yow daganal naa la ko ngir nga bañ a nekk ci benn xat-xat boo lu dul suñu borom yàlla mooy aji jéggalaate aji yërëmaate donte ne ne ci bind bii di ñëw loolu mu ko mayit dana ko récupérer waat ba yeme la ko daalika ak julit ñi mi ngi noonu cheikh ousmane
ترجي من تشاء منهن وتغني إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا kon suñu yenent sallallahu alayhi wa sallam mu ne turji man tashaa'u minhunna na nga delloo ku la neex ci ñoom bañ koo jox ay wa tuwi ilayka man tashaa fatal ku la neex ci ñoom ci diir bu mu la neexe wa man ibtaghayta mimman azalta képp koo sàquwaat ca ña nga fegoon fala junaha alayk amul benn xat-xat bu lay ñël ci loolu dhalika adna an taqarra a'yunuhun lii moo gën a yey ci muy sedd seen bët ya di dal seen bët ya wala yaxzan ñu bañ a doon ñoo xam ne dañuy tiisu wa yardayna bi ma aataytahunna kullahun ñu nekk di bég ca la nga xam ne jox nga leen ko képp kenn ci ñoom wallahu yaalamu ma fi qulubikum yàlla day xam na li nekk seen biir xol yi wa kaana allahu aliman xalima sa borom yàlla nekk na ko xam waaye nekk na ko téey ku lewet ku dul jàpp gaaw a jàpp ay jaamam laa yaxillu laka nisaau min baad waaye na nag daganatul ñell jigéen gannaaw tey ji wala tab an tabaddala bihinna min azwaaj wala ngay soppi kenn ci ñoom ci yenn ci ay soxna walaw ajabaka xusnuhunna ak lum la yéem yéem taaru jigéen ñooñe illa ma malakat yaminuk lu dul loo xam ne moom na ko sa ndeyjoor muy say jaam wa kaana allahu ala kulli shay'in raqiba suñu borom yàlla nag bépp mbir mooy ka nga xam ne moo koy fuglu di ko surveiller mi nga noonu mbokk suñu yeneen sallallahu alayhi wa sallam yàlla may na ko mu takk soxna yooyu soxna yi gannaaw ba borom bi na ko nag soxna yi ma la may ku la ci neex bàyyi ko ay fan bañ a aye ci moom ku la ci neex jël ko di aaye ci moom ña nga bàyyi woon koo ci jëlaat loolu yi amoo ci benn ngant loolu dana tax ba ñoom ñépp seen xol sedd ci nekk gi ñu nekk say soxna ñu bañ a tiisu gërëm la nga xam ne jox nga leen ko kon mbokk yonent bi alayhi salaam yàlla sant ko woon mu maandu ci ay soxnaam comme ni mu ko sant yéen ni jullit ñi bu dee ne jullit ñi bu la yàlla maye ay soxna ñaar ñett ba ñeent da nga war a maandu ci ñoom ci fanaan lu dul ni bu dee ñoo bokk benn kër bokk benn ispati da nga war a maandu ci ñoom ca na ngay fanaane ak ñoom benn fan ñaari fan yaa xam lu dul ne ba ñuy takk sëy ba dañoo négocier woon fanaan gën a muy demee su dee da ngaa takk d' accord ak moom ne ko ah man kat une fois lay mën a fanaan ci ci semaine bi ngeen d' accord wala man kat yaa ngi Saint-Louis maa ngi Dakar une fois laa fay mën a ñëw par mois ñu d' accord loolu moom amul problème waaye bu dee dañoo bokk benn kër bokk yemoo dañoo war a yem amma yonent bi alayhi salaam yàlla da koo teggi loon loolu waaye teewul sallallahu alayhi wa sallam daa yemaloon ay soxna du farate ci moom waaye du ko defoon bokk na ci keroog ba mu feebaree feebar bi mu war a wuy ji boroomam da daan wax waa suba fan la war a aye ñu ne ko néeg diw néeg diw néeg diw ba mujj soxna yi ne waaw teñ ko bàyyi mu yem néeg Aïcha ñu mujj koo bàyyi mu yem néeg Aïcha te it Aïcha mooy benn jigéen bi nga xam ne benn jànq bu yonente bi alayhi salaam takk foofu rek lu ko jibril daan fekk jibril mosu ko fekk ci benn néeg lu dul néeg Aïcha ñu bàyyi ko mu nekk néeg Aïcha ba fa la faatoo radiyallahu anha kon loolu la ko yàlla mayoon ah radiyallahu anha naam moo moo kon loolu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la doon def yemele soxna yi daana def guddi gi jigéen ñëpp dañ daan daje ci moom bu ñu paree ku ne mu gungale ba nga dugg ci sa appartement takkusaan daana wër jigéen ñëpp dugg si ñi nekk mu safaanug liggéey dégg suñu maam yi yow ba yoree ñaari jabar sa mbaxale boo ko fàttee néeg faatu da nga yónnee julli ko waaye doo fa dugg loolu suñuy wax rek la donte ni am na leneen lu gën a gudd loolu mbokk suñu borom bi mu waxee lii nag mun a yonenti yàlla bi jàngoon nañ ci dars yi passé yonenti yàlla bi wool say soxla na leen bu dee àdduna kese lañ bëgg kaay leen ma jox leen lu ngeen bëgg te fas leen ngeen dem di jàngoon nañ ko ah kay ñoom ñëpp kenn yëgoowu ci ak sa morom ndax yonent bi leen koy wax woowu leen dajale leen ku ne dalaa wii tegew wax la ko ñoom ñëpp kenn yéegoowu ci ak sa morom ñoom ñëpp ñu ne yàlla ak yonent bi moo leen gënal àdduna ak bi ci biiram suñu borom nag fayee leen ne yow yonent yàlla bi nag bis ni ki tey nombre bi doo ko passé mooy ñi nga takk nombre bi doo ko passé muy benn te nombre bi doo ko échangé gars yi di wax naa leen jullit ñi dañu leen tënk tënk ci kaata kaata la ñu am droit takk naam bu kenn dee bu la neexee takkaat boo fasee kenn bu la neexee takkaat loolee da ngay gis ne jullit mën naa dem ba am sax dix femmes quinze femmes ci yoon bu dagan mu safaanoog li yonent bi doon wax azawaqin ñu ngi may nettali benn buuru arab boo xam ne quatre lay yor waaye chaque trois mois mu changé avant muy dee tur takk na quarante nangam femmes mbokk loolu lañ tudd azawaqin moskadi waaye bu dee ne yow jubluwoo ci loolu mën ngaa takk sax ba dix ba quinze ndax ku dee koo fase mën nga ko changé amma yonent bi suñu borom na ko tënk naa la ci ñi amoo droit di am keneen ba dañu ne yonent bi alayhi salaam bu soxna yi faatu woon dootul yor soxna xanaa dul ay jaam loolu la leen yàlla fayee soxna yooyu jamono boobu mi ngi denc suñu yaay Sawda suñu yaay Aïcha suñu yaay Hafsa suñu yaay Ummu Salama suñu yaay Ummu Habiba suñu yaay Maymuna ak suñu yaay Juwayra ak suñu yaay Safiya ñii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon mu nekk juróom-ñeent ah suñu yaay Zeynab bintu Jaash naam loolu moo ne ko moo ko def juróom-ñeent Sawda Aïcha Hafsa Umu Habiba Umu Salama Zeynab Maymuna ak Joyera ak Safiya muy juróom-ñeent li yonent bi yoroon lu jiitu ay yi di wàcc dencoon na ñaari soxla ñu jiitu ko Khadija bintu Xuwaylid ak Zeynab bintu Xuzayma ñii ñoo nekkoon soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla faye leen ñu nar a nekk ay soxnaam ca aljanna mu ne ko xanaa lu dul jaam boo moom jaam yooyee gis nañu yonent bi alayhi salaam yàlla mayoon na ko buuru misra buuru égypte ba mu ko woo ci lislaam donte ni dugg ci yónnee na ko benn jaam ñu ko tudda mariatul qibtiya mu boole koog teraanga yu kawe yonent bi alayhi salaam jaamam boobee ca la ko yàlla may benn doom mboolem soxna yi ma leen limal yépp amu cee kenn doom xadija rek la amaloon doom ca Makka waaye yow amu cee kenn doom jaamam bu jigéen boobu la amal doom bu ñuy wax Ibrahim avant muy am ñaari at faatu na borom boobu nag subhanahu wa taala kon gis ngeen maanuteem fee may na ko mu dépassé kaat gannaaw ba fii mu tënk ko jullit ñi mu may leen yem ci kaat waaye boyal leen ku dee koo fa sekk yëpp mën a remplacer borom bi nag subhanahu wa taala ni lii day def naa ko amul benn jigéen boo amati droit takk ak lu mu taaru taaru ci yow ay yéen jullit ñi it xam leen ne suñu borom yàlla mi ngi leen di fuglu ca mbokk suñu borom lu ci bëri heure bi wax wàllu sëy dana indi raqiib wala mu indi xabiir ndax problème mu secret la problème mu biir néeg la man ngaa nax say goro man ngaa nax say dëkkandoo man ngaa nax ku nekk def lu jaaduwul ci biir sëy bi waaye koo mën a naxit mënoo nax yàlla moo tax yàlla mu ne inna allaha kaana alaykum raqiba yàlla dara réeru ko ci li ngeen di def yàlla na yàlla yéwénal suñuy sëy yéwénal suñu njaboot wàcce jàmm suñu réew wàcce ko ci jurit ñi fu ñu mën a nekk ci kaw suuf wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ndax nit ki dafa faatoo dakar ñu jullee ko fii ba pare ñu delluwaat di ko julleewaat loolu day mënuñoo wax la nga xamee ne nii mooy ak tereem waaye nekkul woon ci doxaliinu sahabatul kiram ñu xamoon benn néew boo xam ne nii dañ ko daan teg mbooloo di ko jullee ñaari yoon lañ miinoon ca ñoom mooy képp koo xam ne mbooloo jullee na ko suñu paree ku fekkewul woon jullee ga da ngay doon di ko ñaanal loolu la ñuy wax borom xam-xam yi nag am na ñenn ñu ci génne naan koo xamee ne nii dafa am cër bu mu taxawal ci lislaam bu màgg ak yu demee noonu almuhim daal gisuñu loo xam ne nii dañ naan lii da koy doon lu koy araamal waaye nag bu dee ni ci ngëneel moom ci tegtal yi ñu gis mooy nit ki buñ ko xisee ba mbooloo jullee ko ñe fekkewul julli gi yépp dañ koy ñaanal mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah naam bismillah wa ala kulli haal loolu ñun problème la au sénégal can mooy la nga xam ne dañu naan la lii boo ko indee ñu may la soxna ñun nag suñu problème mooy da ngay ñëw di labat doomi jàmbur ñu laa kii day ñaata laa joxe ñu laa ay sëram day trois cent mille un million lañ leen may kaza wa kaza nga joxe un million loolu mooy can bi boo indil woon loolu duñ la may jabar buñ demee ca jàkk ja rek ñu ne penc mi li fi xew mooy ñeent ak trente six mille ki nangam waaye can daal mooy la ñuy joxe ngir ñu may la soxna loolu la ngay tuddee ak can la gënoon a maandu mooy bu ñëwee ci jàkka ji ñu ne ah kii kat may nañ ko soxna cinq cent mille la maye may nañ ko soxna un million la maye ëllëg ki si biir bu dee ne dañ koo tooñ nar a tas jabaram ci tooñ ko dañ koy delloo loolu waaye bu dee ne Sénégal moom la ñuy xew ci kër seen néew ci dañ ñëw ci jàkka ji ñu ne six mille wala deux mille léegi la bu ñu ne ah bañ koy maye kër six mille lañ ko joxoon kon dañ koy delloo six mille am waaye daal mboo ko can mooy lépp loo xam ni dañ na la pour ñu may la soxna dañ koy indi bokk la nag ñu may la ba pare yow nga dem ak sa coobare bopp mayewaat loolu moom mooy taraday tumbaadal farida waaye daal lépp loo xam ne dañ ne aaday famille bi la il faut nga indi ko ngir ñu jox la jabar loolu la ñu tudde can mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal waaw bismillah naam
après mu mu génn ba mu génnee dellu si waat man biiru at maanaam mu fekk ndaw si ñu may ko keneen bu ñu ko may keneen mu dem ci bàyyi ndaw si ne ko waaw yow man sama soxna mu ne ko ci may naa ko keneen mu ne ko waa déedéet parce que am ma droit ci may ko keneen mu ne ko boo mu ne ko boo waxatee sama soxna la yóbbu ko ma yóbbu la commissariat mu ne yóbbu kenn commissariat léegi nag kooku gaañu na fekk may kooku gaañu na mais waa ji dafa dama ko may dafa continuer juróom moom ay doom si waa léegi nag position de premier jëkkër bi moom lan la par rapport ak doom yi ndax kenn ci premier ci doom yi doom mi la wala amul dara ci doom yi wala lu mu ne salaamaaleykum waaw loolu daal xam naa ñu yóbbu ko ca attekate l'islam bu fi amul ñu dem ci tribunal yi ñu réglé ko incha allah bismillah waaw waaw waaw laaju ñu la dara loolee mooy coobarewul lu la neex joxe waaye ak can munta ñàkk buñ ne ko laaju ñu la dara mu dem yëkkati un million joxe ñu nangu un million yi gannaaw bu ñu tappaas ko tas sëy bi dañ ko war a delloo un million te xam ngeen can lay tax jigéen góor di ko nangu rek mooy dañu ko tas tooñ ko waaye képp koo xam ne tas bi ci yow la jóge amatoo droit di nangu can gi waaye daal bu dee ñoo ko ñoo ko tooñ ci sharia nar a tas soxnaam am na droit nanguwaat ak canam gam leen mayoon loolee mbokk mi ngi noonu ala kulli xaal dafa am ñuy ni bi fu sori ñu doyloo loolu subhanaka allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk